والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu le ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci wee liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c s mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaasal minna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 wa man daa bi daawatihi wa saara ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi bokki jullit yi noo ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di leen nuyu di leen ziyaara ci bis tëdd bi di bisub ajjuma di juróomi fan ci weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar di leen nuyutam ci pàkk bu sell bi di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne lislaam day day diine joo xam ne jàmm moo ko tax a jóg lislaam day diine joo xam ne ku ci tënku am jàmm ci sa àdduna am jàmm su àllaaxira boo gisee muy soññee ci jikko yu rafet jikko yu rafet yi nga xam ne buñ ci tënkoo sunu nekkiin ak sunu toogin dana jëkk bëgg rek nit ñi am jàmm séq jàmm ndax jàmm su amee dañuy am ak dal jàmm su amee ak dal am nit ñi dañuy tal seen bopp soo bëggee liggéey danga ko tal muy yaxantukat bay dem ca jaba walla baykat bay dem ca tool ya wala fonctionnaire ba nga xam ne ca bureau ba lay dem wala ku mën a doon rek su jàmm amee da nga tal sa bopp da nga mën a yëngutu da nga mën a dem ak a dikk jàmm sax su amee barab bii ñu toog muy néegub yàlla mooy tax ñu tal ko am na réew yoo xam ne ñàkk jàmm tax na ba yooyu yi ma wax taluñ ca dara ña bëgg liggéey duñ ko tal ña bëgg jàng duñ ko tal ña bëgg jaamu yàlla duñ ko tal kon nag lépp loo xam ne day maye jàmm war nañ cee xar suñ tànk tànk tubéy di ca xëy di ca gont loolu moo tax lislaam santaane fu nu gisante ñuy saafoonte di ñaanalante jàmm di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ndax nit ki nga dajeel ñaanal ko jàmm ak yërmande ak barke mu delloo la ko kooka jàmm rekk mooy dox seen diggante julli li muy màgg-màgg soo jullee bay taaya sax danga fay ñaan jàmm danga ko ñaanal ku tedd ka alayhi salaatu wassalaam da ko ñaanal sa bopp ak ñi nga nekkal da ko ñaanal mbooleem nit ñu baax ñi moo tax ngay wax naan assalaamu assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin kon gis nga sax ci biir julli danga nga ñaan jàmm soo jullee ba julli ngay jeex nga war a caa génn dangay ñaan jàmm dangay wax assalaamu aleykum kon ndeke jàmm dañu koy sàkkoo fu ne ba ci biir julli doomu aadama ci boppam jàmm rekk moo ko jik wolof sax day léeb ne jaboot jàmmay mbokkam waaye doomu aadama jàmm moo ko jig fii ci àdduna su amul jàmm du tal dara su duggee bàmmeel lu mu fa am lu dul jàmm jàmm ko ko gënal su dekkee ba dem bis pénc jàmm rekk la fay bëgg a am moo tax sayidna isa alayhi salaam ñaanoon ne wasalaamu ya yow ma wulittu mooy fi nga nekkee ci àdduna wa yow ma amootu mooy bi ngay dugg ci bàmmeel wa yow ma ubaasu xayya mooy soo dekkee góor yàlla yi nga xam ne sunu boroom da leen di tagg ci alquran te tàmbalee ko wa ibaadu rahmaani alladina yamshuuna ala al ardi na di wax seeni melo ya gërëm di ko lim di ko lim di ko lim dem na ba ci biir mu ne wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama nee na ñi nga xam ne ñooy góor yàlla yi bokk na ci seeni melo ku ñëw di leen wut ak di leen tàppaas bëgg a indi ab safaan ñoom jàmm rekk la ñuy wax ku bëgg jàmm nag bokk ku gàtt xel day defe na dafa ragal mala malaaka yi bu ñu demee àjjana nun ñëpp bu ñu tàbbee àjjana bis buñ ñuy teeru baatub jàmm la ñuy jëfandikoo waa àjjana sax duñ fa dégg lenn lu dul jàmm laa yasmauna fiha lagawan wala tasiman illaa qiilan salaaman salaama moo tax lislaam lépp loo xam day xañe jàmm da koo tere moo tax muy tere tooñ sunu borom mi nu sàkk moom nu wax na ne man duma tooñ inna allaha laa yadlimu nnaasa shay'a walakinna annaasa anfusahum yadlimun yàlla du tooñ te bëggul kenn kuy tooñ wax na ci benn xadis qudsi ne yéen sama jaam ñi araamal naa tooñ ci sama bopp araamal ko ci seen diggante kon bu leen tooñante yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltu wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu bu ñu demee sax ba jàmmaarloog yéefar ya di xare ak xare ni mu mettee sunu borom dafa wax ne bu ngeen dee xare ba ñoom ñu sàkk sàkku jàmm yentam na ngeen leen jox jàmm wa in janaxu li salmi li salmi fajnax laha bokk na nag ci liy xañe jàmm mooy tooñ doomu aadama mën naa tooñ sunu boroom waaye mën naa tooñ moroomam jaamam waaye sunu borom li mu santaane mooy bu ñu ko tooñee na jéggale su ko mënul nag bu bum toññar bi toññar bi mooy suy fayu bu mu xaabaabal na yem rekk ca lañu ko tooñ moo tax mu ne wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha tekki na ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala kon nit ki suñu ko tooñee te munta muñ na fayyu te bu mu tooñ ñaar bi waaye su ma nee jéggale moo gënal yàlla ñu tooñ la nga jéggale nag day daraja ju kawe kawe joo xam ne ñépp mënuñ faa nekk waaye day lu yàlla tagg tax na mu ne wala man sabara wa xafara inna dalika la min azmi l umur moo tax sunu sëriñ mu cheikhuna ahmadul xadim ba mu sañcee dëkk ba mu jëkk sañc da ko tudde daaru salaam ngir wan ñépp ne moom jàmm rekk moo ko tax a jóg jàmm lay dox jàmm lay wax yemu ca mu nàmpatal taalibe yi ci ñuy dox jàmm di wax jàmm fu mu toll muy ñaan jàmm naan ijaal salaamatan taduumu yaa salaam li walil iyaali fi daari salaam bëgg jàmm moo tax sëriñ bu mag bi daan tere tooñ yëm yëmul sax ci tere ku tooñ waaye da daan tere ko fayyu daan wax ne dee leen moytu ak tooñ tey moytoo fayyu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ daana tere waxee bakkan ndax wa soo waxee bakkan ñaare mën naa indi safaan mu ne dee leen moytoo waxee bakkan ndax ku waxee bakkan ñu tontoo ko bakkan ngeen féewaloo te féewaloo lu nekk xaj na ca daan roy sangam ba alayhi salaatu wasalaam ci jéggale ndaxte yéen ñëpp xam ngeen ne Abdullah ibnu Ubay mi nga xam ne moo jiite woon naa fiqi fitna jone teg na ko yonent bi ak saxaaba yi ak lislaam tuuma jañ tuumaaloon soxna Aïchatu moo ko jiite woon waaye ba mu faatoo te fekk na ne doomam tuub na doomam dafa ñëw ca sang ba alayhi salaatu wasalaam ne ko dama bëgg nga jéggal sama baay mu ne ko jéggal naa ko mu ne ko dama bëgg nga fab ci sa yére jox ma ko ñu sànge ko ko mu jox ko ko mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ko yàlla jéggal ko Sina Omar ne ko loola moom du am ku tedd ko ne ko dañ ma tànnloo su neexee ma sa sàkkul ko njëggal su ma neexee ma bañ koo sàkku istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum mu ne ko dama bëgg nga jullee ko mu jullee ko ba mu ko jullee na ca la alquran wàcc dal ko koy tere wax ko ne ko kii ak ku mel ni moom bu faatootee bu fa sab tànk jam wala tusalli ala ahadin minhum maata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa maatoo wa hum fasiquun mos naa laaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen mbër waada ñu ne ko waada mooy ku ub làmb mooy ku daan ñépp mu ne leen déedéet walakinahu alladi yamliku nafsahu inda algadab mu ne leen waada mooy koo xam ne su meree du def njaaxum du wax njaaxum am na ko mosa sàkku ci moom ne ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ko laa taxdab bul mer waaye nag lii indi safaan di féewale ay xol mooy tooñ tooñ nag li koy waral dafa bari bokk na ci lii waral tooñ kii tooñ bàyyiwul xel ne sunu boroom amul kumpa te boroom sañ-sañ la boroom kàttan la kii ngay tooñ mën na koo làq te mën na ko fayul bokk na ci liy waral tooñ kii tooñ ñaare dafa nekk ci jamono joo xam ne ak barab boo xam ne ña fa ñeme yàlla ñoo ëpp ña fa ragal yàlla bokk na ci liy waral tooñ mooy koo xam ne soo gisee nit ñu baax ñi ñu war a roy doo leen nangoo roy doo am ci ñoom soxla bokk na ci liy waral tooñ mooy xëccoo alal wala xëccoo daraja wala xëccoo ndombo tànk te yooyu yépp soo ko tënkee mooy xëccoo àdduna bokk na ci liy waral tooñ mooy ñàkk xam ne tooñ soo ko defee sunu borom du ko neenal faw Euh, faw mu att mu àttale ak ak ki nga xam ne moom nga tooñ bokk na ci liy waral tooñ ñu bare dañoo am kumpa ci ne ki ñu tooñ su dëkkee yàlla ay loxoom ñaan ko suñu boroom du delloo ay loxoom lu mu ñaan suñu boroom da koy def waaye nag am na ñoo xam ne fa ñu toll ak fa ñu àgg ku leen tooñ ñu jéggal la xam nga ne sëriñ bi natt yu ñu ko teg ak génne gi ñu ko génne ak coono yi teewul dafa wax ne tooñ ngeen koo xam ne du fayyu moom ku tooñ yàlla koy naqari waaye soo ko tooñee mën na ko muñ yéen a ko génne teg koy fitna teg koy nattu waaye jéggal na leen ngir jëmme yàlla mi nga xam ne jéggal na ko la zalamtumu al abda alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim axrajtumuuhu min diyaarihi bila xaqin wa jahada wa qaasaahu l bala li wajhi man anhu afa ankum afa baada jihaadin wa balain doifa waaye foofu mu toll nag toll fa dafa yombul waaye bu ñu la tooñee nag sooy fayu bul toññar bi as gor nag suñu ko dee tooñ di ko tooñ di ko tooñ ba mu sës sañ naa taxaw bañ laa tasqini ma alxayaati bi dillatin bal fasqini bil izzi bil izzi kësal xandali boo gën gisee xew-xew yi xewoon ci réew mi ci fan yi ñàkk tënku ci njàngalim lislaam rek moo ko war moo ko waral ndax yi ñuy waxante di ko tuu tuumaalante bu fekkoonte ne dañoo tënk tënk ju lislaam ba tey jeex na ndax ki tuumaal nit am na lu ci lislaam santaane ki ñu tuumaalit am na lu ci lislaam santaane waaye gannaaw dañ ne fa ñukk nag njàngaleem lislaam muy alquran ne fa ñukk sunna ne fa ñukk nag njàngaleem cheikhuna ahmadul xadim su fitna amee bu ñu ko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 yal na yàlla gën koo kàttanal gën koo may wér gën gën koo may fan wu gudd ba taxawaay bi muy taxawu lislaam mu am ci ndam yu kawe njortam te loolu yi day yàgg na fi bët yàgg naa xonq ñu fekk ci sëñ bu mag bi ndax xam ngeen ne xijaas ca màkka amoon nañuy jafe-jafe ami xeexoo ak i xiiroo ki ŋaayoo waaye dañoo yabal ay ndaw ñu ñëw njaareem ci sëriñ bi xam ngeen itam ca gànnaar amoon na fa ay xiiroo ak a ŋaayoo ak i xeexoo waaye dañu ko diisoon sëriñ bi moo waraloon xasid ak wakaan xaqan aleyna nasrul muminin kon bu ñu demee ba jëmmi jamono ji bët xonq ñu xam ne fa ñu daan làqoo bu ñu fa demee raw ñu si fi booba dañoo delloo buum ca boy boy ba lii mat a leeral nag mooy dañoo wax ne senegaal population bi suñu ko xaymaa téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yi ay ndaw lañu kon ay tuut tànk ñoo gën a bari ci réew mi loolu nag li muy wundu mooy day wane ne lu ñu jàngal ndaw ñi nañ ko xeeb lu ñu yar ndaw ñi nañ ko xeeb moo tax naal wu rëy wii nga xam ne moom la sëriñ bi naal naalub yàlla la naalub ngën ji mbindeef la naalub sëriñ bi la ñépp a ci war a jàpp ku am xel mu rafet ku am kàttan ku am alal lu waaye man jàpp ci ndax bis bu demee ba sotti ba ami bànqaas ci biir dëkk bi ami bànqaas ci biir réew mi ba ndaw ñi ñu di leen jàngal di leen yar yarub diine yarub taalibe su booba xew-xew yi xew waxuñu ne dana jeex tàkk waaye dana néew dana wàññiku kon nag jàppale ko ci sémb bii mu sémb ba mu yeggale ko ba sémb yeneen sémb ba tax njàngale mi law yar bi law dana indi jàmm ci réew mi wa minhu tarbiyatuka al awlaada li kay yanaalu baadaha rachada kon loola ñëpp ci war jàpp def ci seen loxo waaye ni ma ko waxe woon nit suñu ko tooñee mu sës bañ moo yey as gor day bañ xam ngeen ne mag ñooñee dëkkoon làmbaay te ñu bëgg leen a tere sëñ Touba ni leen dangeen koy bàyyi dañoo bañ te sëñ bi da leen a nàmpatal ci muñ ak tooñ te bañ a fayu waaye dañoo bañ bañu demee ba sës dañoo bañ sëriñ Mamar Maane ko tontu booba ne ko da nangam dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomboog tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk kon asgor bu sësee day bañ waaye nag soo bañee bu ñu la tooñee buy bul toññar bi moo tax ngeen dégg sëriñ bi waxoon ne yëngu-yëngu yi may dégg day bu leen ci boole Touba. yabal ay ndaw ba ñu waxtaanee tax na jàmm delsi ndaxte bu ñu la tooñee nga sës mertam yemal ci fayu waaye bul toññar bi te toññar bi mooy ngay def lu ëpp lañu la defoon ba cay boole koo xam ne yoonam nekku ca ndax bari na ci réew mi ñoo xam ne yàqal nañ leen seen alal ñii commerçant lañ doonoon ñu yàqal leen ko ñii amoon oto ñu yàq ko ñii ami kër ñu taal ko yàqal ñoo xam ne seen yoon néew ci loola mooy ñu tooñ la nga toññar bi te yàlla dafa waxoon ne wa jazaau sayyi'atin sayyi'atun misluha buñ la tooñee na nga yem ci booy fayu nanga nga yem ci lañ la def te sax soo mënee jéggali moo gën fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah nañu delloo siwaat yarub diine ak yarub taalibe di jëf lu rafet di wax lu rafet wa qulu linnaasi xusna sunu borom ba mu yónnee Moussa ak Haroun ca Firawna te Firawna ko ne xam na ne kàccoor ci moom la yem waaye da leen a yàpp ba ñuy dem na leen su ngeen demee bu leen wax lu ñaaw li muy doon doon af kàccoor bu leen ko wax lu ñaaw na ngeen wax ak moom wax ju nooy ndax su ngeen waxee moom wax ju nooy yàlla mën na ko wëlbati idhaba ila firawna innahu taxa fa quula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yaxsha gannaaw nag firawna la ñuy wax wax ju nooy masa sa mbokkum jullit te mbokkum jullit day soo ko tegee loo xam ne du dëgg lu diis diis fa sunu borom la walladina yuduuna almuminina walmuminaati bi gayri ma ktasabu faqad ixtamalu buhtaanan wa isman mubina te ab jullit day rafet njortu ci mbokkam jullitam def ko ni sa bopp am na tuuma joo xam ne suñu ko tegee sa mbokkum jullit da nga koy natt ci sa bopp soo ko jomboo rek na nga ne jomb na ko lawlaa iz lawlaa iz samitumuhu danna almuminuuna walmuminaatu bi anfusihim xayra wa qaalu hada ifkum mubin xam ngeen ne ba sang ba ànd ak saxaaba yi dem bëgg a umra jiite yéefar yi dox seen diggante ak umra def na loo xam ne kuy wut jàmm rek moo koy def ndax dañoo waxtaan ba ne ko dañuy bind benn pacte boo xam ne su dewee ne lañ lay may nga umra waaye ren doo umra ba ñuy bind pacte ba nag mu ne nañ bind bismillahi rahmaani rahim yéefar yee ne ko déedéet ne duñ ca dal ndax ñoom xamuñu loolu mu ne lu xam ñu ne ko bismika allahumma mu fekki leen saxaaba yi mer ni ñoom nag basmala la ñuy bind mun a leen déedéet kuy wut jàmm yoonu jàmm soriwul ba ñu bindee loola mu tekki ne hada ma qaada bihi hada ma qaada alayhi muhammadun rasulullah lii mooy li muhammad siñeenteeg yéefar yi waaye ba mu ne muhammad rasulullah ñu ne déedéet buñ gëmoon ne yow la yàlla yónni du ñu jàmmaarloog yow di xeex mu ne kon nañ ko far nañ bind muhammad ibnu abdullah saxaaba yi nag duñ ca dal mu ne déedéet yow nu jàmm soriwul gis ngeen kuy wut jàmm fu na bëggee ñëw rek nga taxaw ne déedéet man jàmm rekk lay raas jàmm rek lay wut moo tax am na bataaxel boo xam ne sëriñ bee ko bind wax ca ne moom jéggal na képp ku ko tooñ te kuy jéggal kala tooñ nag faw jàmm am mu waxaat ca ne du ma yem sax ci jéggal ko waaye sax duma ko ñaan yàlla dama koy bàyyi ak yàlla mu waxaat na képp kuy ab jullit fu ma toll maa ngi lay sàkkul njégalu sunu boroom te nit ki ngay sàkkul njégal jàmm rek mooy dox seen diggante waxaat ne képp koo xam ne danga aju ci moom la mu la yéene moom la yéene ña ajuwul ci moom kon képp kuy doom aadama rek dalay yéene jàmm mu teg ca nag ne na ngeen fexe ba nit ñi mucc ci seen lori làmmiñ ni ñu muccee ci seen lori loxo kon ab taalibe bi ni mu téyee loxoom ni la war a téye làmmiñam wal yaslamil wal yaslamil muslimuuna wal muslimaatu min ada alsinatikum kama salimu wa salim na min ada aydikum wax yooyu mu wax naan wérd yépp day yóbboo ca yàlla bëgg rekk nit ñi bàyyante xel xam ne ñoo bokk luñ munta séddoo moo tax mu ko doon wax te loolu lépp jàngale jàmm moo tax mu di ko def naan yéen jaame yàlla na ngeen euh, bañ a añaanante bañ a noonoo te soppante ci ngir jëmm yàlla bañ xëccoo xam ne bu ngeen soppantee ci la seen pas-pas di wér kunu ibadullahi ya ixwaani bila taxaasudin wala udwaani in inna taxaabuba huwa al imaanu li ahlihi surur wal iqaanu man xabba lil axi alladi yuxibu li nafsihi radiya anhu rabbu mos naa dégg ñuy werante moom sëriñ bi werante ba seeni dënn jóg ba mu génnee ne leen lastum yahudan wa laysu nasaara fekk booba tariqa la ñu bokkul ñi bokk fee ñee bokk fee dee werante nag ba seeni dënn jóg mu génn na leen lastum yahudan walaysu nasaara mi ngi bëgg a junñu yàlla wax ne wa qaalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qaalat an nasara laysat ala shay wa hum yatluuna al kitaab kadalika qaala alladina laa misla qawlihim fallahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fi ma fii fihi foon kon bokk yi fitna ji nga xam ne amoon na ci réew mi bu yàggul nañu delloo siwaat xel yi nañu bës xol yi te xam ne ñoo bokk luñ mënta séddoo réew mi duñ ko génn jëm fenn te bari na réew yu tàkk yoo xam ne la ko taal ci lu tuute la soqi ko xam ngeen ne diggante gànnaar ak senegaal mos naa tàkk te lu ñàkk solo moo ko taal xam ngeen ne barki démb rek yéen a yéen a ngi dégg ne Gàmbi gi am na fa ku dëkk senegaal ku doon jël yëfi jàmbur ba jëflanteeg moom ba faat ko waaye waa réew ma jóg nag di fayu ci waa Sénégal ya di taal seeni kër di taal seeni alal kon gis ngeen ne fitna ak musiba ak ay ci lu ñàkk solo lay tàmbalee te su xasee tàkk kenn xamul fan lay yem gannaaw nag jaboot jàmmay mbokkam te sëriñ bii moo jaboote ñëpp moo tax mu sol dàllam di dox jàmm di wax jàmm ba mu seddandi damay wax ne seddandi ba agsi fii kon nag li ñuy ñaan yàlla mooy mboolem ñi nga xam ne ñoo ko séq kenn ku nekk na bës xolam kenn ku nekk na déglu ndigalul sëriñ bi ndax kat suñu ko suñu ko dégloo rek jàmm am su ko ñëpp dégloo jëfe li mu santaane jàmm am wax naa ko sànq ganaaw ñiy xare sax ñooy dem ba yàgg ñu toog ci taabal waxtaan ngir am jàmm masa ñoo xam ne nag àgguñ ci xare wa in janaxu li salmi fajnax laha wa tawakkal ala allah mos nañoo wax sëriñ bi ne ko tee ngaa wut fetal def ni mag ñu baax ñala jiitoo jiitu woon def xeex ngir tasaara islaam xeex ngir ñoŋal sa bopp ak sa mbooloo ak sa njaboot waaye mu tontu leen ne leen buntu fetal lum la may buntu fetal moo la koy xañ kon xam na ne soo xaree ba daan soo bëree ba daanit it ña nga daan mën nañ laa jox seeni jëmm waaye duñ la jox seeni xol te buñ la joxul seeni xol ñangay ngay waaji ña ngay defaru ji ña takkiwaat seen i bu ñu jekkee dañu dal ci sa kaw wala seeni doom dal ci kaw say doom wala seeni sët dal ci kaw say sët moo tax mu ne déedéet buntu fetal lu mu la may buntu fetal moo la koy xañ moo taxoon mu santaane bisub demam ba ne nañ ko def bisub sant yàlla bisub naqar bisub tàggoog sa njaboot bisub génn sa kër bisub tumuranke ak nattu ak bala nga ne nañ ko def bisub sant yàlla ndax bëgg nit ñi delloo si seen xel bëpp seeni i xol ba fàtte la weesoo woon moo tax mu ne shughiltu bi shukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa bayna al askari shaghalani shukur ilahin qabila kulliyati an dhikri maadin min bala nee na duma fàttaliku la weesu waaye man damay sant rek cant gi may sant laa tal waaye tëluma leneen kon ñi ngi ñaanal sunu kilifa gi nga xam ne jàmm rek lay dox di ko wax di ko santaane sunu kilifa gi nga xam ne xolam dafa rëy te bari yërmande lool yërëm nit ñi yërëm taalibe yi yéene leen jàmm di leen dimbale di leen taxaw di leen ñaanal yàlla na sunu borom may fan wu gudd te mu te mottali ay yéeneem ton ànd koog moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ci waa kër muy xamal candidat